si bu doon yow ana dee mi ngi nii yow doo dem di deewi donc boo demee ba yor ay kii nii ay doomu aadama war nga mën a fonk ne yoboo mala ay doomu aadama nga yor parce que bakkan ci li gën a fort ci la bokk boo ko seetee si Europe sax boo demee du nit rek la fonk ñoom lépp luy dund bakkan sax dañ ko fonk. muy mala ndax mën na loo xam ci yan moment nga fekk ci soog bi ba maa yi ngay ñëw ci yan lan nga tombeel man dama ñëw juste tombé. sapeur yi di jël benn maire bi ñu koy jël di ko teg fële fekk moom dee na ba pare. Oh. ñu jël ko làq ko fële. de sànq lañ ko yóbbu mi ñu yóbbu euh, blessé ba pare si la ñu doog a yóbbu maire bi nii. kon ki kenn ki kenn àdduna à peu près si ñaataat lay war a toll. bon avion xam naa ne war na mën ay quarante et quelque cinquante. Ah, waaw parce waaw waaw waaw ci imagine mais mënu ma la wax parce que gisuma pièce tamit jàkk na bakkanam koy teg naa si sa bët gis naa ko. dañ ko ah, muur waaw. yóbbu ah. yi ci ban anam nga leen gis. ak mu garaaw chauffeur bi yére bi xotteeku na huile bi tuuru na si kawam lakk na ci. ak yu demee noonu moom it sonn ñu bari vraiment sonn na te tata. ñuy wax ne am na euh, dizaine de blessés yoo xam ne c'est des blessés trop graves. grave ëpp na ko sax. ëpp na ko sax parce que ñi nga xam ne ñu dem ba mënul tuñ seen bopp dara dañ leen di yëkkati donc c' est kooku blessé grave la loolu mooy problème bi. mais environ loolu bonne heure la. je euh, ma euh, mën naa la ban heure ay 14 heures yooyu. 14 heures 14 heures et quart vraiment maa ñu ngi leen ñu ngi rafetlu seen teewaay sincèrement du liggéey bu mucc ay bi lañ fi def et puis nañ ñëpp. bon pour lan nga moo indi bi dañ doon njëkkante wala doon dàqante wala lan la. non d'après li ñu wax si li ñu wax dafa jóge fële xam ñàkk frein la ñu wax allure bi mu egsee donc euh, allure bi mu egsee waroon na mën a waroon na ko mën a sóoraale avant muy jege si fii parce que fële boo jógee autoroute xam ne sa car dafa am défaut war nga mën a maîtriser wu di seet nag ngay dawale mais doo ñëw rek euh, mënoo dawal ba pare nga ñëw rek ak allure boobu di ko daanu di ko daanu parce que tamit war nañu mën a xoolaat tamit si permis ni ñu koy joxee. parce que permis actuellement nii nii nii nii ni ñu koy joxee dafa garaaw la plupart ñi si gën a bëri auto école la ñuy jaar pour une semaine duñ fa jaar sax ndax di ko politiser di ko jox mairie yi ñuy may ay permis ak yu demee noonu moo tax taxol yi salté bokk na ci li nit ñi a jaxase bopp nit ñi doo maanaam boo jógee fi boo nga bañ a xam fan ngay jaar a leer quoi ah circulation bi ni dawal c'est pas la fois ba at bi ñu ko defaree ak léegi ëpp ñu ko defaree ak ëpp na léegi bi rond-point bi nekk war na mat vingt ans ou trente ans te ñaata yoon c'est rare nga fay gis accident bu mel noonu yi nii la rek ko bu ñuy dox di defar si tali yi parce que nit tax di jéem a seet nee naa leen daal problème bi yëpp indiscipline rek. moo ko da nga jàpp ni problème bi réel mooy problème comportement. comportement la comportement moo indi loolu du leneen waxtaan wax dëgg ci la dañu waxante dëgg ni ñu ku si nekk da nga koy seet ne bii doon yoon ngay dawal oto nga xam ne su ma ko defee lii mën na ma ci fekk war nga mën a moytu loolu parce que waroo mën a xaar sax ñu naan la eh wala eh loolu mooy problème bi voilà.